révision liste électorale yi jàpp leen man bëggoon naa ku ñuy ŋañ nga génn ak këyit ne man maa dem laaj lii Alioune Ndoye mu signal ma ko mu bañ benn bëggoon naa mu am que de décrédibiliser comme ça une institution municipale délégué de quartier yi fi ne ay at ngi ñu ne fi ñaari ñetti cas am kenn ki yàlla da koo moom waa loolu coobare Alioune changé guñ ko parce que man Alioune Ndoye bi ma fi toogee ba léegi mosuma jël këyit ne diw yaa koy doon damay bàyyi ba quartier ba def assemblée générale désigné nit ma defal ko ay këyitam loolu est-ce que am na foofu amagul léegi est-ce que may na nit ku jóg rek parce que xam na ma wala xam na keneen dugg ci néeg di defal ay certificat c'est pas acceptable loolu nan nga ciy sukkandikoo naan ñu ngi empêcher les primo-votants ñu voter foofu ñoom dañuy dèjà wane ni laj dina njàgg na parce que élection du jour bi ñoom ñoo ko wax de du jour bi nga ko gañ mais ñoom nañu xam ne sa trop tard parce que primo votant yooyu ñuy wax bëgg ko akimoo ñoom di suñuy doom suñu jarbaat suñuy rakk dund ak ñun ci quartier yi suñu mbokk doon ay acteurs souvent suñu wet ñooñ nga bëgg yow akimoo seen vote comme ça par des déclamations kan mooy nax boppam parce que primo votant yi ñi ci ëpp wu ñu certificat de résidence pour inscrire bi ñuy ubbi liste yi y plus de un million cent mille primo votants yu amoon seen carte d'identité ñooñu photocopie carte d'identité bi la ñu ñëw fii nit ñi inscrire mais du xam sax ndax inscrire nañu wala inscrire te plateau semaine dernière bi ñu may defal la situation mooy commune bi ëppoon ci ñu bindu te ñooñu ñi ci ëpp c'était des primo votants waaw quelques transferts parce que gars yi moom xam nga ci la leen yaakaar transfert waaye fii man ma wax la da nga transféré nit mu ñëw fii bu waxtaanee nekk ñi fi dëkk ñu ne ah, man kat kii lay kon man ngay liggéeyal sax booy transfert. na seen xel dal ci loolu. bëgg a victimiser am argument campagne état bi état bi état bi état bi li mu war a jël yëpp ci yoon. teg na ko ci yoon te ku yaakaar ni nag mën nga fee jóg bés bu yàlla sax nga naan da ngay xuppaateeg machin ñoo bokk fi ñu dëkk Dakar gii lañ dëkk ñu bokk quartier yi kon am na yoo xam ne nañ ko wàcc nañ ko baax bu ñu fowoo nit ñi kenn mënu fi yàq ay centre d'inscription mën nga bett nit ñi def benn action waaye dal la xat foofu laay woowee waa plateau notamment la jeunesse du plateau par rapport ak tout le monde mënoo bés bu yàlla sax ngay jàmm sante koo xam ne tas la nga yor rek la bëgg yàq sa teraanga yàq sa dëkkiin woowu la dara ci lu fitna wow la ci liggéey wow la ci defar woowu la ci tabax fitna la lay woow bés bu yàlla sax foofu laa ne Ndakaaru dépassé na loolu maa ngi wax sax ñi liggéey Dakar doon ay Dakar waa nañu xoolaat seen bopp parce que am amu Dakar du pour renforcer ay nit pour ñu dem samp ji seen i dëkk te looloo fi ne parce que nag dafa jot ñuy commencé wax am amu Dakar du pour enrichir des carrières personnelles de gens dans leur localité léegi loolu lu koy firndeel rek lii man leen directeur yeeg chef de service yeeg et cetera maanaam ñiy dogal foofu ngeen wax ma élection yi di ñëw nii ñoom fan la ñu samp seen dund est-ce que Ndakaaru lañ ko samp c'est pas compliqué à vérifier kon plateau sama délégué quartier yi bu ma juumul am na ñu ne ci biir hmm? waaw maa Moustapha Diop moo ñaan sax ay at ci gannaaw woo naa leen fii ne leen dimbali leen ma ci surveiller seen mission c'est capital parce que day impacter ci dundu nit ñi état civil c'est important mais aussi ñu xàmmee parce que man damay dëkk ak yow quartier ñu fal la chef délégué de quartier ma ne yoo yow doo sama délégué de quartier nekk sama kër jël samay photocopie defar samay këyit di ko jox ku ma neex loolu aussi dañ ko fi dakka on m'a opposé ku ñu yóbbu police mais dem leen ngeen seeti dana leen wax ni man Aliou Ndoye ma police parce que kooku ñuy wax sama nit la sama mbokk la kooku du fekkee fu ñu may fexeel man kon kay man maa amoon intérêt kooku mu bañ am problème donc côté boobu aussi damay wax ni foowee nañ ko foowee ko ba tey bu élection jotee ñu ne ma yow à peu près 34 000 électeurs nga am boo xoolee sa askan sa effect sa population on est à 37 000 mais 37 000 si vous envoyez enlevez ñi nga xam ne yoruñu âge de vote on a dit que la jeunesse est supérieure ici no ah. donc plus de la moitié est censée bañ a nekk ay votants. kon 34 millions yi ñoo ñan parce que du sax élection te ku ci ne da naan ah, man xaaral ma dem inscrire plateau parce que moo feebaree dina am prise en charge de 80 pour cent samay doom bu ne nekk école du ñu fay fistine c'est gratuit euh, bon déedéet may leen ma point de presse la point de presse la ah bu tabaski amee danañ ma gungi bu korité amee dañ ma gungi mën naa ci yaakaar dem màkk wala fees wala rom mën na et cetera donc loolu bu dee bésu yàlla sàkk nga xëy plateau da naan kat xel may na moom bindu fi ce n'est même politique kooku ngay transfert moo tax ma ne wax la ni boo ko defee Alioune Ndoye lay watal <laughs> kon maa amoon intérêt noppi ci mais day fausser le jeu day fausser les statistiques économie réew ci statistique la nekk da koy fausser c'est c'est très important day day day day faussé lu bëri yoo xam ne nit ñi duñ ko comprendre tey demain ça peut même amener à exploser le budget de la commune li muy def ci baax dootu ko mën a continuer def et cetera et cetera loolu la ñuy xool xool ñooy élection yàlla mooy fal kii falu le 22 janvier suñu borom dessiné na ko ba pare nii lépp dañuy rafetal rek dañuy sabab waaye duñ ko soppi